ay Aïcha voilà euh, ami internaute yu solution TV euh, mbégte la ñuy am saay su nekk di jàkkaarloog yéen ci actu euh, solution actu solution nag boo ko déggee 30 minutes yoo xamante ne ni daañu ci waxtaanee actualité yi nekk ci biir réew mi gën fee fës lool bokk na ci nag procès bi nga xamante ne ni ñoo ngi ko doon amal tey fii ci Dakaaru ci tirbinal bu Dakar mu yemook procès Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ci. mbirum Prodac buñ ci noppee rek dinañ ànd ak yéen eh, ci li nga xamante ne ni moo di arestation yi nga xamante ne ni nemmeeku nañ ko eh, ci ndaw yi nga xamante ne ni ñoo bokkee fële ca Pastef ak waa yi Askan Wi eh, tëjee ak li nga xamante ne ni moo di signal bi nga xamante ne ni waa Walfadjri moom la Babacar Diagne bu CNRA tëj li nga xamante ne ni moo di signal bu Walf TV ginnaaw bi loolu rek dañ ci fas yéene ànd ak suñu journaliste bu mag bi lay di Omar Omar Boun Khatab Gueye jaajëfal nag képp koo xam ne nii yaa ngi ñuy teewlu jamono ji ci solution TV nuyu bu baax ak ñaanal suñu ami internet yi parce que ñoom ñooy commenté di ñu bàyyi xel saay su nekk kon nag jaajëfal leen da ciy daal di baax loolu dañuy daal di bàyyi rek Omar Boun Khatab Gueye mi nga xamante ne nii moom lañ fa yéene àndal ci waxtaan wi mu nuyoog ami et internet solution TV Omar maa ngi lay nuyu. maa jigéen maa ngi lay fay bu baax a baax di la nuyu di am bu baax tamit ci. ni ñuy àndee ci solution info TV. Mhm. di gërëm ñëpp tamit di leen sant ci ni ñuy teewloo waxtaan wi ak mhm. bopp bi ñu jox euh, solution loolu ñu ci bég bu baax a baax di nuyu ñëpp nag di ñaanal ñëpp jàmm di ziar bu baax euh, El Hadj Seydou Lamine Niass mhm. min tuddee studio bi di ñaan suñu borom yokk leeram te tax ñu ci barkeem di ñaanal sëñ Habib Gueye mu xaddamu sëriñ Mansour suñu borom dimbali ko waaye tamit euh, sëñ Sidi mu sëñ Abdou Lahad sëriñu Saa Njoogu ñu ngi koy <laughs> nuyu di nuy sëñ Sidi tey bu ñas tamit te nekk ca géej waaye bokk ci lew na ñaseen ñu ngi nuy ñëpp daal di leen ziar mhm. di ñaanal ñëpp jàmm fas yéene rek euh, xaaral laaj yi ngir mën cee indi tontu ay ci mi ngi noonu comme ni nga ko waxee rek ñoo ngi ci studio Sidi Lamine Niass di ko ñaanal nag moom bu baax a baax sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram ay dañu daal di door waxtaan wi ak li nga xamante ne nii moo di procès bu Mame Mbaye Niang ak ki nga xamante ne nii moo di Ousmane Sonko tey nag euh, gis nañ ni bi ñu xëyee euh, kii di Ousmane Sonko dem na ca tribunal ba fa seeni ji jàkkaarloo ak ki nga xamante ne nii moo di Mame yi Niang waaye nag Oumar dafa mel ni procès bi dañ ko daal di dàkkaat ba le 16 mars bi ñu dëgmal mu mel ni nag avoca yi nee nañu bi ñu génnee parti bu nekk euh, génn nga wax li nga xamante ne nii noonu nga gisee waa parti bu Ousmane Sonko muy ay avoca am xamal ne nañ ni ne nee nañ mbir yi dañu disposition bi nga xamante ne ni waroon naa ce seen dossier bi ñu yor muy seen i ay euh, li nga xamante ne ni moo di preuve ci clé la nekkoon te gisuñu ne am na écran écran géant bu nga xamante ne ni mën nañ ko fa mën a teg ngir mën a dëgmal li nga xamante ne ni ñoom yor nañ ko ci ay preuve ñee tamit ne euh, fi mu toll nii ñoom ragal a tax ñu ñaan à ce ñu dàq procès bi Omar dañ lay bàyyi rek nga leeral ñi nga xamante ne ni ñoo di ñenn ci internet yi peut-être information bi raw mais mm-hmm. wala layoo bu jotee yay moo dàq mm-hmm. maanaam xëy nañu ci suba mm-hmm. malgré tintemar bi yëpp mais man dama bokk ci eh, renvoi bi maanaam dàq gi ñu ko dàq mm. bett gi mu bett man bettu ma alu ah, tax ah, que xaaroon naa ko bi ñuy dugg rek avant nee naa soñ bu lii kenn ku lee parce que daa am lu mambay ñaa wax mm. mambay ñaa dafa am nag mu wax dëgg mm. nee na jëru woon sax ay avocat maanaam jar woon sax Sonko di lii ay avocat wana dëgg parce que procès bi jarul woon sax mi dem tribunal waroon na ci yokk loolu jarul woon sax porte plainte Sonko maanaam li mu jarul lii nii dafa bari Mame Mbaye Niang dafa gëmal ñëpp ni tey jii moom day politique rek moo ko tax a jóg ak ay caaxaan. Mhm. parce que noonu mu waxee jar woon avocat mais jaru woon yóbbu tribunal jaru woon di yëkkati réew mi yëpp jar woon di tiital réew mi yëpp parce que. li fi ñor ban koy màcc amu ko. Mhm. rapport Prodac boo xam ne depuis ay at nit a ngi ci wax Ousmane Sonko wax ci xanaa Ousmane Sonko mooy ku ma amul ndey. Mhm. ba tax lépp loo xam ne rek wax na ko rek mu mën ko jural ay plainte foofu Mambay li mu wax dëgg la jar woon sax lii lépp léegi nag déglu naa Mambay ñaa euh, déglu avocat Ousmane Sonko Mambay wax na waxi politique. Mhm. mooy wax jëm waxoon bii paase ban koy njëkk a dàq la de mooy dafa daw. wax jooja la répété moom way woowu ñu ngi ciy bëgg a sonn nag way dafa daw moom nañu indil leneen loo xam ne da koy setal ba ci liñ ko tuumaal ci Prodac wax ji mooy mamba yi dafa lekk suñu alal wala lekk ko maanaam moom foofu la ñu war a yóbbu moom mais Ousmane sonk dafa daw dafa daw mi ngi koy waxaat mais boo déggee li avocat usmaan Sonko bi wax mamba yi waxi politik lay wax avocat bi waxi yoon lay wax dafa ne. dafa am benn élément nouveau maanaam lu bees ci dossier bi maanaam benn avocat bu ñëw constitué maanaam bu dee dafa am avocat bu bees bu ñëw dugg ci dossier dañ ko war a may mu càmbar dossier bi ndaxte mbir mi du wax sa xalaat mais wax ci loo xam la mhm. kon nan ko may ba jëmmi jamono ngir ñu xool dossier bi ngir mën ci sóobuwaat loolu yoon mooy ki leen ko may loolu tax nee na bi leen ne mbir mi du yàgg dem leen ay minutes rek ngeen xool ñun leen déedéet yoon doxewul noonu léegi bi ñu xëccoowee ak juge bi ci la bâtonnier ordre des avocats ñëw atte jël texte yi teg na leen li avocat Ousmane Sonko koy wax mooy dëgg mbir mi dafa war a am renvoi ba tey ji foofu yoon mooy wax mhm. maanaam yoon moo maye lii du loo xam ne Ousmane Sonko moo ko bëgg dafa am ñaanu luñ mënul maye mais dafa ñaan li ko yoon may ay avocat ñaanal ko ko tey jii ñu puus lii beneen bi ciy topp ci lu tax ñu pus ko mooy juge bi dofuñu jinne jàpp leen parce que nag dossier boo xam ne tey jii dama gëm ni dafa vide li ci ne bariwul jër woon sax di dajale réew mi tey jii boo koy àtte ci lan nga koy àttee mais aussi boo koy àtte ci avenir koo xam ne xale yi dañ ko yaakaar nga koy àtte ci bis boo xam ne lu ne mën na xew ci réew mi te démb mu wootee na fekk leen ma tribunal ñoom des fois lépp lu ñuy teg rek Ousmane Sonko da koy teg maanaam lépp lu ñu lal da koy lalli parce que ñoom dañuy jàpp ni Ousmane Sonko la mu jàppoon bee passé lay def mooy day xëy na du dem ñu bëgg ko ñoom jubluwuñ dara ci ay atte xëy toroxal ko ne dañ koy jëli réew mi tàkk ñu ne moom mu wuy jul yoon wala mu bañoon a ñëw ñu atte ko ci ginnaawam teg ko lu ko neex ñu ne euh, les absents ont toujours tort maanaam. Mm. comme ñëwul atte nañ ko ci ginnaawam bu ñëwoon mun na am lii du xew. Mm. comme li may faral day mel maam mu koy dee wala boog daa am ñu koy dee ci tribunal bi ci lan moo war a xew ëllëg ji nga bi muy wax ci renvoi bi nee leen bu ñu demee sax ba ci koor gi le 16 day jege koor gi te gëm naa ni bu ñu eggee le 16 ñu puusaat ko parce que ñoom jubluwuñ ci lenn lu dul jëfi politique mais aussi tardel waa ji parce que tamit jamono yi maa jigéen. Mm. bi ñuy toll fii en 2011 débat bi gënoon a rëy opposition ak société civile di ko def xam mooy ban débat. mooy troisième mandat warul am. pour man fi ñu toll fii nguuru Macky li ñuy def noo ko tay di sonal nit ñi ci ay procès yu amul bopp amul genn ban nit nga mës a porter euh, plainte ci àddina na ko euh, tribune euh, avocat sax jaru ko woon <laughs> te te ci wàllu yoon mm. yenn dossiers yi mii man di yow ak ku mënti doon même buñ demoon sax ba dugg ci te ñun nanguwuñu am avocat suñuy avocat ñu wutal dañuy utal avocat comme li amoon ci mbiri seen abré ñaata nit tey ji ñooy dem ci yoon mënuñu am sax moyen pour am avocat ñu utal leen ko yow nga jiiñ nit ne daf maa diffamé procureur chargé ko teg ko lu ko neex moom avenir am nekk ci kanamam mais du ut ñu ko layo léegi Ousmane Sonko li mu war a def Mame Mbaye Niang moo koy wax kon Ousmane Sonko ba tey ji mi ngi ci yoon mais Mame Mbaye ba tey ji mi ngi ci politique pour man politique waaw Oumar yaa ngi wax tout à l'heure euh, que ni euh, ku war a dem la surtout jamono ji est-ce que euh, ban njeexital nga gis ni war na mën a am ci li nga xamante ne nii moo di procès bi parce que ñëpp xam nañ ni élection présidentielle yi c'est bientôt ñuy jàpp mbir mi di ko pousse ni di ko pousse est-ce que jàppoo ni mënul indil benn problème ki nga xamante ne nii moo di Ousmane Sonko moom mi nga xamante ne nii dafa apprêté à ce que nekk président de la République du Sénégal Ousmane Sonko démb dafa wax benn wax hmm. wax ju am solo yoon la duut baaraam ni mooy problème mu réew mi lu xew ci réew mi ci lu ñaaw rek yoonu réew mi la loolu naqadi naqadiwul weddi maanaam Ousmane Sonko amatul problème ak Mame Mbaye Niang amatul problème ak Macky Sall mm. amatul problème ak ma Massamba mais yoonu réew mi la amal problème alors que yoon nag du daw ci yaama neex. Ah, mais est-ce que yoon bii ngay wax nekkatul léegi parce que ñoom dañu féete ci côté état parce que li leen état sant rek loolu la gars yi seetlu ne. moom la ñuy def ko donc yoon mooy état mais moo tax mu ne moom yoon la amal problème xam nga tax mu ne yoon la amal problème. Mm. tey jii juge bi waroon na àtte mbir mi. Mm. bu budul woon bâtonnier day jalgati yoon. mais bâtonnier mu ñëwaat na ko renvoi day am te ci bi procu bi ñuy yóbbu dossier bi tey jii procureur xamul wax renvoi ferme xam renvoi ferme mooy lan. Mm. maanaam bu ñu ko dàqee ba. egg ci àtte bi kenn du ko puusaat alors que dan ne bu ñu ko puusee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon foofu nag la ñuy tëjee dossier bi ne na léegi nag la léegi tànk na tàlli wala mu ba de banko mais lépp loo xam ne yoon da ko may Ousmane Sonko ñoom dañ ko koy bëgg xañ si seen sañ-sañ ak bëgg-bëgg ak si seen bakkan di nga bakkan kenn du ci àtte di nga réew mi dañ ko teg ci ay règlement ci ay sart ne nii la war a doxee ngal la waay bu dee ni Ousmane Sonko moo tooñ nan utiliser li ko yoon may yëpp mais aussi li ko yoon xañ yëpp mais waruñu ko defee parce que waa ji neex na ma wala neexuma waruñu ko def parce que Mame Mbaye tey ji bu yoon tey ji réew mi doon jaar yoon Mame Mbaye la ñu woo ci yoon na ko xaalis Prodac fu mu dugg mais defuñu loolu lépp léegi di topp Ousmane Sonko ci seen i bëgg-bëgg dama lay indil démb Ousmane Sonko dafa wax démb wax joo xam ne guddi gi yëpp moo tax ma guddee tëdd di ko di ko gëstu. mooy mooy fii maam xam Diallo waxee si ko COPAD ni Ousmane Sonko maanaam imaginel ordonnance de renvoi boo xam ne tey jii. kii di juge bi def na ko ne day àtte mbiri Adji Sarr mais Ousmane Sonko viol lañ ko jiiñ dëgg laam du dëgg mais yamal ki yow li nga ko jiiñ mais demee boo demee ba di egg ci niveau wu di ko génnee ci nitee <laughs> maanaam Maham Diallo ci commentaire am Ousmane Sonko la génnee ci nite mhm. loola démb boo xoolee Ousmane Sonko xaw na jot jikkoom ba ne ab lâche la mhm. parce que li mu wax bind ko jox ko samay avocat mais bu ko waxoon sama kanam mhm. am lu manqué ci moom parce que daf ci am loo xam ne kenn du ko wax ci koo xam ne tey jii dafa boot mbooloo kenn du ko wax ci koo xam ne tey jii dafa jaboote. kenn du ko wax ci koo xam ne tey jii dans onze mois mun na doon président de la république du Sénégal. xam man lu tax dossier Adji Sarr des fois di ma énervé. Hmm. imaginal tey jii Ousmane Sonko nekkoon président de la république du Sénégal tey. Hmm. ak li nga ko taqal yëpp bu ko yoon setalul. bu ñu demee suñu yeneen nawle yeneen réew yi ban bët la ñuy xoolee Ousmane Sonko. Mm, ak li ñuy waxee maanaam di nga ci adversité Barthélémy Dias da moom sa dégg mu wax ko ci mbiri Khalifa Sall. nee na Macky sàll ci côté xeex ak adversaire am da dul xam fan la ciy yem ji nga Youssou Ndour dafa way way bu am solo. mu ne nit ku ne war na maanaam nit ku ne war ndaje mu ne nit ku ne war na am. lu muy desal ngir bu ëllëgee ñu mën kaa setal yi nga Macky Sall ci wàllu xeex hmm. dafa war a di am lu muy desal di sóoraale ëllëg hmm. ndaxte ku mu fay sa bor nga mel la nga leb la moo baaxul hmm. ay Mamour Diallo yi tamit di nga Ousmane Sonko ni mu leen teg koo ëllëg bi leen ñu duma bu kenn jug ci réew mi ne ñoom kat de na leen baal wala na leen jégal parce que nag si di nga boo demee ci définition bi bi xola dafa ñaaw maanaam nit koo xam ne sañ na def lu ne sañ na lu ne ay yëg lay demee ak ay émotion dafa impulsif maanaam ko nekkatoo di atte yoon mais yaa ngi jugé nit di ko xas ci wàllu jikko ci ko xam ne dafa yor ay soxnaam yor ay doomam mm. ëppoo ko diplôme mm. mu def quinze ans ci administration mm. sàccul alalu kenn mm-hmm. euh, deful kenn dara yow ab juge ngay waxee ci ab yëg-yëg parce que nit ki peut-être daa am loo ko jàppal wala dara ngay bind ci kayit xamul loolu lu ñu ci jublu bu demee ba bisu tribunal ba même bu deful mbiri viol léegi réquisitoire procureur day toog dañu wax ñu lan mooy psychopathe Ousmane Sonko toog ñu taaj ko maanaam di ko caricaturer di ko peinture comme koo xam ne mooy nit ki gën a yées ci mim réew di Sénégal nan la ab juge mu ne loolu. loolu nag day génn justice loolu ah. xam fa lay dugg. Uh-huh. ci ab règlement de compte mooy yaa neex wala neexoo ma. te justice warul doxee noonu. <laughs> ayca leer na ma mm-hmm. balaa ñuy cof balaa ñuy dem ci deuxième point bi. Euh, tuuti rek mm-hmm. bëggoon naa ñu mm-hmm. cof ci euh, génn bu muy génn këram euh, tey ci suba xaw na ci am difficulté parce qu'il paraît que nee ñu benn oto bu nga xamante ni bokkul ci convoi am ñu jàpp ni que ay nervi la ba moom moo waroon tax sax avant ñuy génn si ta kër góor gi sax problème daal di fay am loolu aussi ban jàngat nga si def. yàlla bu la naree taal say matti noonu la lay xambee. një yë yàlla ku ko yëngal yaa ngi koy dëgëral. ana yi nu mu tudd booy boobu. Pape Malick Ndour Pape Malick ñu waxoon ni day dem këram jëlee ko. <laughs> ak ak ak ak ak dajale cinq mille personnes. dajale cinq mille personnes yooyu ñu doon wax yëpp ay mm. sóob la. tey jii waajoo ñu dugal foofu pour man xamoo la la. Mm. piège la ci ñoom Ousmane Sonko. Mm. ci Mbàkke mi ngi doon dawal otoom. ay takk der di ko kar tey jii mbir Mame Mbaye Niang ñu ko ci tee dem élection mënuñu ko ci teg mbiri Adji Sarr mbiri tappale la pour man mm. danoo bëgg a créer boucan ay bakkan rot ci ñu jiñ ko ko foofu nag Ousmane Sonko mu war di demee xel mm-hmm. te bañ a demee xol parce que kuy rëbb jaan doo faale jiit Ousmane Sonko benn nit la am ci nawle ci politique mooy président Macky Sall te pour man le combat jamono yi mm. président Macky Sall da leen dugal ci piège boo xam ne ñoom ñëpp tam dañ ci commencé di daanu muy societé civile bi di politiciens yi di ñëpp mooy ku ne daf laa indil lu la doy mm. ba toloo mbiri troisième mandat Ousmane Sonko mën na am yii yëpp kenn du ko ci sanctionné mais dañuy fexe ba du tal combat contre troisième parce que mbooloo mi mu yor mm. bu jugoon ànd ak société civile bi ñu ne troisième mandat du fi am mm. troisième mandat du am mais jamono yi Ousmane Sonko boppam lay tal société civile seen bopp lan taal Karim Wade boppam la taal Khalifa Sall boppam la taal alors que waxtu wi benn way lan waroon a way xoolal Idrissa Seck daf leen tendre la perche à Thiès Idrissa Seck mi ànd ak moom mais da ko kal wax ak moom ci mbiru troisième mandat mm. mais tey jii looloo woon de waroon na doon débat ci réew mi. man dama gëm ni fii ba 2024. Mm. chaque weer ñu woo Ousmane Sonko ñu topp ci naan dina bokk ak du bokk fekk Macky Sall mi ngay lijjanti bokkam te du bokk te fii ku warul bokk kenn la mooy Macky Sall mm. warul dem élection bay doon. candidat en tout cas en tout cas soulever nga benn point boo xamante ne nii du ñàkk suñu yeneen i jotaay dinañ ci ñëwaat parce euh, euh, di bu baax a baax. ñu ngi koy provoqué léegi nag li ci xew ñu jiñ ko ko. <laughs> Ah, jotaay dinañ ci ñëwaat incha allah nga gën ci xuus. moo bun xataam nag dañuy daal dem ci arrestation yi nga xamante ne ni seetlu nañ ko euh, depuis lors tey jii sax ci suba gi euh, am na affrontement yu nga xamante ne ni xawoon na am tuuti fële ci côté Sandaga ngir ndaw yooyu nga xamante ne nii doon nañ topp soo ko ba ñu jàpp ci ñetti nit lan ngay wax euh, ñi nga xamante jot nañ leen jàpp parce que dafay mel ni affaire bi. dem na ba ñu bëgg ci dugal lu nga xamante ni ni bokk ci parce que xale yi demoon nañ bay wax ni jàkkaarloo ko euh, détenu euh, homme de force de l'ordre yi di leen wax ñun jàmm ak salaam rek la ñu la ñu la ñu bëgg uma xale yi jàmm la ñu bëgg waaye jàmm ñaar a koy dox mhm. parce que woonoon Ousmane Sonko ma ngay wuy ji mu ne sara xolle wala fi neneen du topp nooyu bàyyi seet Ousmane Sonko bi muy ñëw ci Walfadjri gi korog yëgluwul waaye bi ñu ko gisee ci live bi ñëpp ñëw teew mhm. ba muy ñëw géejuwaay krok ci absence de travail la doon def. Mhm. waaye ba mu génnee mbooloo mi dar nañ ko moom ci boppam li mu am mooy ko boppam su borom a ko may. Mhm. loolu naka ñëpp nangu Ousmane Sonko dama naan ñi mu ameel àq ci réew mi bari nan moo tax ñu bëree soppe tamit du ñàkk mu bëree ko ay noon bar moo tax làmb ji bombardier tafaatin <laughs> day xola man bisu combat ba laay yëg ni ñaar ñi dañuy bëri. Uh-huh, uh-huh. boo xoolee équipe nationale bi gagné coupe sax mënuñu ko feete ndaxte nag Ousmane Sonko bayram dafa yóbbu bayram ñu bari. Mm. Macky Sall wëndeel la na fi ci seex taxawaalu ba yegg si. mais fa la yem lu tax doo dégg ndaje ma ca Thiès jalloore boo ci amee ndam yaa koy nettali. wala ñu la koy nettali. la xewoon ci Kër Massar ba tey ñu ngi koy nettali. ji mm. nag loolu nag boo taalee réseaux sociaux yi xale yi di ko live boo tegee ay vidéo muy dox loolu mbiri sunu borom la. daa am ñu ko yéenewul nag ba tax muy dagg seen xol loolu moo waral jàpp gi yëpp comme mënuñu jàpp Ousmane Sonko. Mm. léegi dañuy fexe ku ko jege wala ku ko bëgguñu ñu jàpp la. léegi foofu la ñu ne alors que ñooñu defuñu leen dara bu nu amee ku ñuy jàpp nañ jàppi Ousmane Sonko bu dee ñeme nañ ko coow li coow li du du activiste yi ñuy jàpp wala journaliste wala wàll bi ñuy tëj ñooñ du problème bi problème bi ñoom benn problème lañ am mooy Sonko mais dañ ko mënulul dara. amoon nañ fi benn sponsor bi jàll doon wax naan xaw ma ba jëm nañ ko toppandoo mun ñu ko toppandoo waaye léegi nee nañ dañ koy génnee réew mi daf maanaam dafa toll ci foo xam ne tey jii ci niveau côté boobu ñoom rëbb nañ ko fu ne léegi ay nitam la ñuy jàpp di nga lu tax ma ni la stratégie boobu la ñu am léegi mënatuñ ko jàpp mais képp koo xam ne dañuy jàpp ni dooleem nga. Mm. nga nekk média wala dara. Mm. dañuy fex nga néew doole ngir doo ko dikkee renfort di nga bi ñuy wax mafia kacci kacci mm. lu amoon doole la ci Ousmane Sonko ñu xëy Ousmane Diagne yaa ngi gis ci la bayre kacc kacc déggatoo ko lu bari xaw xaw wàññeeku tuuti. léegi da ngay xool croque euh, Hannibal Jim. Jim waaw. doon ab euh, activiste mais Kopar Express. bi doon ci dimbali ay nit ñoom ñu jàpp ni tey ji Ousmane Sonko bu mu mënee dajale ay trois cent millions. ci ay cagnotte ñoom ñoo tax mais aussi képp koo xam ne ñu ngi lay newal doole ci réew mi rek ba ci ay Ndeye Khady Ndiaye ak ñoom seen. Mm-hmm. waa jooju moo tax tey jii ñooñu doole ji leen comme ñoom seen nguur danoo soxor iñaan bon ba jàpp ni. tey ji kenn warul am dara ñoom rek ñoo war a am ñoo fi war a tekki ñoom ñëpp ay buur la ay dag la ñoom loolu lañ gëm mm-hmm. waa ji ñu jël ko téye mm-hmm. waa ji téye nañ ko ay awkaam teew xamuñu lan lañ ko war a jiiñ mm-hmm. léegi ñiy wër la lay teg ci kawam ñu ne waaj day financé ay force occulte ci ay force occulte force occulte waxoon nañ ñu ko ceeweru mars ba tey ji kenn génnewu ko gendarmerie bi sax weddi woon ni loolu amul tey ji waajoo ji tey ñu jël tey loolu xamoo la la léegi nekkatuñu ci nan jàpp Ousmane Sonko nañ tëj robinet yi dundal Ousmane Sonko di ko dooleel bu dee wax waxkat nu tëj làmmiñam bu dee fi alal war a jaar ñu ne na nanu tëj foofu le ba alal du fa jaar dem nañ ba te Kopar Express boobu Ousmane Sonko moo ci gën a néewle hmm. bari na ci ñuy feebar di ci faju bari na ci ay sénégalais yi jaaxle woon hmm. bu ñu foofu mu doon ab entreprise bi ay nit di liggéeyee mais ñoom xooluñu doomu Sénégal yi fay liggéey. Ah, mais Omar bu fàtte ni am na beneen projet ñu teg ngir mm, oto bi ñu wax ne dañ ko koy jëndal xaw ma limousine la xaw ma nañ koy waxee noonu kon donc mi ngi siy gagné dara Omar. ah ak fu non Ousmane Sonko moom xoola mi ngi ciy gagné dara mais ñoom gagné boobu lañ bëggatul moo tax ay Hannibal ñu jàpp leen te xamuñu lu tax ñu jàpp leen parce que gis nañ ni buñ ko jàppee affaire fisc sax jëmoon nañ ko teg entreprise bi mais ñoom indi nañ ay leeral ci ni liñ koy teg dara amu ci mais ñoom seen problème du Hannibal moo def waral deful. mooy Copper Express lañ bëgg a daaneel maanaam bëgg-bëgg Ousmane Sonko tax na ñu tëj Ousmane Walfadjri une semaine. entreprise yi bari na ay entreprise yu doon dox bu ñu yaakaaree ni xaw nga jege tuut Ousmane Sonko te wallaay azim jege jegoon ko Ousmane Sonko du fa actionnaire du fa dara. Hmm. deful lu leen dara. mais mais ñoom seen problème ma. waaw arrestation dama lay nettali lu tax arrestation yi. Hmm. di am c'est stratégique benn Pape Alé Niang ñu mun ko pousse pour mu noppi parce que dañoo gisoon ne kaddu la gënoon jàppale Ousmane Sonko. Hmm. maanaam ñoom seen jàpp yi. jubluwuñ ci ku def ak ku deful. stratégie la boo xam ne pour museler mais aussi bëgg isole isoler kii di Ousmane ko ba du am fu mu noyeeti même bu dee ni moom libre na même bu dee ni moom mun na doxi soxlaam mais dañuy fexe ba képp ku ko doon jariñ doo ko jariñet moo tax képp ku ñu jàpp ni doole Ousmane Sonko nga. Uh-huh. ñu néewal la doole. waa mais mais mbirum Kopar euh, Express boobu ngay wax ba ñu tey ci ki nga xamante ni moo di animal Hannibal euh, excusez-moi euh, ñoom ñoo leen ñoom état ñoom ñoo leen jox kayit bi donc bu ñu demee ba bëgg ko tëj à quelle fin. parce que usman Sonko seen problème du Hannibal seen problème du Nick Doff seen problème du Massamba seen problème du Walfadjri c'est Ousmane Sonko mooy seen problème te ñemewuñ ko nag parce que Ousmane Sonko dem doo wax lu leer maa leen mën. Mm. Macky boo génnee ci mbedd mu ma génn nga xam ne maa la mën mbooloo mi sama ginnaaw la ne ndaw ñi sama doole la ne alors que pouvoir bi même bu ko takk der yi wooye takk der yi pouvoir bi da nga koy exercer un nom du bu dee justice li muy atte ci turu peuple bi la koy def peuple boobu nag war ñu leen xeeb di nga dama lay jox tey benn exemple di nga sunu kilifay diine yi ngay gis fii. lan la leen wegee mbooloo. am na ci loo xam ne tey même boo ko yëgoon ni am na te yoon war ko lijjanti mais dañ koy lijjanti ci suuf fii la Macky Sall toog ne yenn dossiers yi maa teg sama cooñ mu ne am na ci ñoo xam ne bu mu leen toppee réew mi yëngat xamoon nañ fi mu doon waxee parce que dafa laaloon ab kilifa diine. Mm. tey jii Ousmane Sonko tollul foofu. wala mu weesu foofu. Mm-hmm. kon nan bàyyi xel Ousmane Sonko du jëmm ji mais mbooloom ak ñi mu àndal léegi nag comme ab say la wala ab dank léegi dañuy fexe di ci par bant jàpp na ni mën nañ ko neewal doole mais loolu yàlla ki mu gën a mën a wéttali mooy ku wér yàlla dafa mëne foofu maanaam yàlla ay mbiram dafa yéeme depuis ko ñu commencé di ko néewal doole depuis que ñu commencé di ko jiiñ depuis ko ñu commencé di ko génne ci administration waa ji ba léegi ngi nekk mu ne mais aussi tamit mi ngi gën di jug mi ngi gën di yéeg. loolu nag xamoo nag lu koy liy noppal nguur man dama leen jox conseil moo ñu nangu maanaam nangu li yàlla dogal ji nga boo ko nangoo. Hmm. da ngay noppalu. ñu di def politique ci nu mu normale bu buggaan waree dem élection ñu bàyyi ko mu dem bu ma sàmb waree dem élection ñu bàyyi mu dem bu xalifa waree dem ñu bàyyi ko mu dem ñu dem dans une compétition boo xam ne tey jii Macky Sall day am candidat ñëpp am candidat ñu dem bu boobaa sénégalais yi xool. léegi ñoom waruñu bàyyi di di juge Ousmane Sonko ci ñun bëgg nan bàyyi askan wi juge ko. Mhm. mooy askan wi ñooy xool ni waa ji est-ce que nitu fitna la nit fitna kenn bëggu ko. Mhm. ñooy xool ni waa ji violeur la kenn bëgg ko. Mhm. ñooy xool ni waa ji lii la lii la lii la bu ñu demee ba ci biir sénégalais bu ñu duggee ci urne bi ñu ne mais kii liñ ko jiñ yëpp kii duñ ko dénk réew mi bu boobaa sénégalais ñoo tànn Ousmane Sonko aussi tamit day accepté loolu mais liñ mënul mooy président Macky Sall def ñaari mandat mu jeex léegi mu war ñoo tànnal koo xam ne moo ñuy jiite ji ëllëg loolu du sañ-sañam te loolu waru ko parce que lebaluñ ko loolu aussi lebaluñ ko loolu ab Abdoulaye Wade tey ji da ko may pour mu mën a taxaw dérouler ba tey ji mu doon lu mu doon tey jii na bàyyi bu dee Ousmane Sonko la wala Massamba ak ba ñu dem élection ci jàmm ak salaam di nga tey jii sénégalais kenn moomu leen. nga mm-hmm. Ousmane Sonko tey bu fi defoon lu na weng loo xam ne jar na ñàkk dem élection. sénégalais yi dañ koy seetaan ji nga en 2012 kan moo gën a populaire Youssou Ndour ci réew mi ah boobu Youssou Ndour mi ngi ci combat bi mm. mais bi ko Abdoulaye Wade bi ñu ko baaree ne Youssou Ndour warul dem ñaar sénégalais ñoo jug di xeex bariwul sénégalais yu jug de. Mhm. ndaxte ba nu ñëwee yaay sénégalais yi wax leen ni waaju lu tax du dem. Mhm. sénégalais yëpp danoo jàpp lii moo mënta ne mhm. Youssou Ndour te xam ne mënta dem. Ah. mu jàppale ñi dem ban falu. gi nga logique boobu ñu nekkoon. Mm. ba Abdou Abdou Diouf naan jàkka jàng ku mën a nodd noddal. Abdoulaye Wade ñëw yaatal démocratie média yi yaatu ku mën a doon candidat doon ko. ji nga tamit noonu la Macky Sall war a doxe mm. ba réew mi. képp koo xam ne di nga li ko nar a dal mooy ki iñaani sa ndono mhm. sa deewin ñaaw te looloo ko nar a dal ay ceto ñun nag stabilité vraiment la ñu soxla ci biir réew mi mhm. euh, daanaka six minutes moo ñu dese si suñu trente minutes yi dañuy jeexalee ak li nga xamante ne ni moom moo waral coow li yépp li ñuy wax nag naan ay du yem ci bopp boroom parce que euh, mbàkkee bi nga xamante ne ni keroog demoon na fa moo waral ñu coupé li nga xamante ne nii moo di signalu Walfadjri daanaka mu commencé jur ay coow yu bëree bëree bëree ba euh, suba sax ci alju ajuma ji fa yéene nañoo amal ab ndaje fii ci biir Walfadjri ñuy sàkku nag à ce bépp sénégalais bu nga xamante ne ni ñaa ngi ñaawlu li ni mel ñu ngi wootee ci jullit juma ji ñëpp ñëw euh, teewee ko ma mu mel ni tamit beneen problème amaat na muy signalisation bi nga xamante ni nii euh, signal bi nga xamante ni coupé nañ ko fii ci Walf mu nekk beneen problème encore waaw mange mhm. ah, tey gis nga tenue de combat la sol pour waajal suba <laughs> ah incha allah di <laughs> nga di nga xama bu bu bu bu ñafee amoon ay daw di am saa njoogu du daw xool lu mu sol tey ah, saa du xeex daa di xëy di sance moom Cheikh Bara te coow lee fi ne même Cheikh Bara du xeex parce que li mu sol mënul ànd ak di xeex ah, mais ay bañkat lañ nag ah bañ ci laamin bi dañ ci laamin bi waaye muy <laughs> uh-huh. noonu ji maa jigéen mm. tooñ gi gën a rëy ci at mi nguuru Macky Sall ji nga bu leen àq waa réew mi dalee. Hmm. gëm naan fi mu mujj du rafet. Ah. ndaxte yàlla dafa ne ñaanu ku nu tooñ dama koy nangu. Hmm. maytul nit ku ñuy tooñ. wala fajri da leen a tooñ. leen a tooñ léegi nag liñ ci jublu. Hmm. li ma la wax mooy réew mi da da am fu ñu jëm ëllëg. te bisu tey bi bokkoon na ci waxoon naa ko bi mu mujjee toog fii mooy mbir mi di xew. mu doon épée de dama Damoclès maanaam li daan xëbal yat bu njëkk bi day dal. Mhm. dañuy napp Walfadjri ngir napp yeneen médias yi. Mhm. mais ko danoo xam ne koo régalul mënoo ko regle ñoom régaluñu Walfadjri Walfadjri këru yàlla la yàllaa leen yor. Mhm. peut-être ñoom dañuy umpale lool mais ku xam Walfadjri ak ni muy doxee. ak li ko fi téye ba tey yi nga xam ne mbir yàlla la. bi fi seet Lamine jógee da nga daan dégg am ñu ne la Walf du dem juróom benn weer te mm. man bi may ñëw Walf rek lay jox benn confidence ah yow foo jëm fee moom borom dem na yow yow mbaar da ngay xaru ji te boobu xamuñu ni yàlla ay mbiram moom weesu na ñoom fi ñu koy xalaatee mm-hmm. waaw nit euh, xelam day gàtt yenn saa yi mm-hmm. loolu tax ma ni la kon dañoo jum ci côté boobu mm-hmm. léegi nag li war a xew ci réew mi ëllëg léegi benn Walfadjri ne ah semaine bi métti woon na ci man de est-ce que dinaa sañati la ma ñoon est-ce que beneen médiateur jug ne est-ce que dinaa ko sañaat pour mën nappe la. mais Omar bu ñu fàtte ne du lii du lu bees te yàgg nañ. comme ñu ni ñu daan doxalee rek la ñuy doxalee. ba léegi non bii. xam nañ ñi danoo toll ci niveau di ko def te ne kenn du ko wax. Hmm. nguur gi. Hmm. foofu la ñu toll ak média yi. te nguur gi danoo dem ba egg ci dictature médiatique waxatuñ ci wàllu politique mais danoo dem ba côté boobu ñu dugg ci parce que Macky Sall da ngay xool logique bi mu def bi mu doog di falu képp ku doonoon journaliste bu mag. xam Macky Sall nekkoon na patron de presse. Mhm. amoon na fi ay journal Kocc Abou Abel Thiam. gars yi nekkoon ci ginnaaw gi yëpp ay Ile midi yooyu yëpp xew na fi. Mhm. kon moom ku min presse la mais aussi ku yàgg xeex a presse la. nganaay li mu yoroon di ko xeexee nag nganaay loolu la bëgg a yoroo ci loxo ñëpp pour mën a amaat troisième mandat kon réew mi daa am fu mu jëm. Mhm. foofu mu jëm nag mooy mooy damay fexe ba gàllankoor presse bi ba du yëngootu mais lool ñàkk xam ni réseaux sociaux ak fi jamono toll. comme ñoom danoo xew yi te danoo arriéré. do jamono da leen a dépassé te seen xel daa gàtt ñu jàpp ni bu ñu coupé Walf wala feneen ak feneen information du yëngooti. Mm-hmm. beneen bi ci topp voilà dama lay jox tamit benn exemple. en une minute waay. ji nga euh, tey ji mun na dem ba egg ci Sénégal man ak nguuru Macky Sall. Mm. ñu ne bu élection amatee yooyu di am maanaam dem ci bureau de vote yi rajo ak tele yi di joxe ay résultat mm. est que xam mën nañ dem ba egg foofu ak ñi ah Hmm? man dama gëm ni dañuy dem on va une dictature médiatique te dictature médiatique boobu code de la presse bi piège la ci taskatu xabaar yi hmm. bu demee ba nguur gi mën a tànn kan mooy journaliste ko doonul di joxe ay carte presse hmm. te te man ma gis am ñu am carte presse te du eh, nekkatul ay journaliste man gis naa ko man. te ma xam leen. ay journaliste nekk ci rédaction yi di exercer ñu xañ ñu bañal leen ko. kon bu ñu ba nguur gi saña naan kan mooy journaliste na ministre de est-ce que comprendre ko may waxee. Mhm, mhm. loolu tax man la daa am fu ñu jëm loolu nag day laaj presse yëpp dajaloo. Mhm. am taxawaay. mais aussi tamit euh, jàpp ni fi ñu jëm. dara duñ ko may comme ñoom danoo teg un gouvernement de combat et d'attaque. la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer waruñu leen xaar. mais aussi waruñu leen may dara. lépp lu mu laaj. Ah. nan ko def pour jàkkaarloo ak ñoom. parce que fi ñu Abdou Diouf ak Laye Wade yóbbu du nangu Macky Sall duñ delloo ginnaaw. léegi nag dafa am benn waay bu may tontu. may ma ko rek na ko waaree ci may. mooy waa ji Abou Diallo. lii defuma ko pour Walfadjri dama ko def pour Seydi Lamine Niass Seydi nekkatu fi waajoo ji di lambar lambari media bu ne mu wër ko hmm. mouvement ak association bu ne mu dugg ci hmm. M23 waaw ñoo Abdourahmane Sow li jëm ci wàllu Covid bi nekkoon na ci parti Idrissa Seck tey jii média bu ne mu toog fa bàyyiwul Sandiogu bàyyiwul Cheikh Bara bàyyiwul Walfadjri tey jii mi ngi ci Seydi Lamine Niass hmm. daf ci am loo xam ne. moom boo waxee mu naan day défendre taalibe cheikh yi gën ñoo doon tijaan dàq ñoo weer di ñun bi ñuy jël. weer tijaan amuñu 30 ans dama la non dama ko bëgg a wax ni. Mm. xoolal ñàkk a jomo tax mi kaalawu. Mm-hmm. ndaxte kaala day njëkkee ci ndigg doog a egg ci loos ñun mm. dañoo xamoon ni boo nekkee xale. Mm. nekk xeexkat di bañkat da ngay takk sa kaala ci sa ndigg. fa seen liggéey fa seen am jom. ay mais doo fi nekk di xas góor ñi. doo fi nekk di lu ne nga teg ko góor ñi ku nu wax nga xas ko nga saaga ko. Mm-hmm. tudd bi ma tudd turam sax maa ngi ciy jégalu ndax dama koy may ay vues. Mhm. parce que musuma li may seetaan mu am plus de 2000 vues bariwul. d'accord na tëj làmmiñam te xam fan lay waxee. évidemment moom tey bu nee taaliba Cheikh la. Mhm. tey jii mhm. waroon na rusé rek Cheikh Tidiane ki di Seydi Lamine Niass. d'accord xamul lu tax man la lu tax mu war a ko ko rusé. mooy dafa ne taaliba Cheikh la. Ah. Seydi Lamine ndeyam Chérif la bàyyam Serigne la. loolu rek waroon na ko lusé. mais nag euh, dañuy mbubboo ay tarixa di mbubboo ni ñoom ay leneen te loolu gënuñu koo doon. di dóor ay mbaxane di dóor ay laafa di lii. Mm. yooyu yëpp ay dóor la affaire nandite la ñun nan la leen. pikin ngeen dëkk ci baali bu leen dëkk di nga nanu nanu yaru. te xam ne ñun ah. xam nañ leen. ayca. man ndaw li kaalawu te nag mu jub jamono. Mm. naafeq day nduróog waa li wude plateau ba nag nga toog fa naan cheikh cheikh hmm. nanu nanu may jàmm ñun gën ñu ñoo bëgg tarixa bi gën ñu ñu koy gëm koro maa ngi dégg ci tog bi naan Omar la mu wax ci Serigne Tidiane lañ wax nii ji nga gën ñu maa doon Tidiane gën ñu maa doon man 95 laa commencé doon Tivaouane covid 19 laa mësa tëb Tivaouane ji nga yooyu ñuy def noonu safuma hmm. yëngaluma ñoom Abou Diallo amuñu benn leçon bu may jëlee ci ñoom d'accord waaw ñun fëgguñu benn bureau kilifa seetuwuñu kenn hmm. yolwaanuñu kenn demuñu ci kenn mais nag Serigne Lamine Niass na ci génne làmmiñam lépp lu muy wax waawal fajri tontu lu ma waawal fajri ndax ñoom mën a tontu ñu ngi fa mais daf ci am loo xam ne il faut être sérieux voilà d'accord ayca kon ñu nga tàggatoo rek ba beneen jeudi incha allah doylu ma ci moom da nga waroon bàyyi ma dox ci moom bu baax <laughs> waaw bu jeudi incha allah ñu dooree ko rek bu waxaatee maa ngi nii xam naa la d'accord incha allah voilà loo fi waxat naa la tontu ayca mi kon di la gërëm bu baax merci di la sant Euh, di am mbégte nag euh, comme d'habitude nun koy defee ci solution mhm. info TV mhm. wéy leen euh, di abonné mhm. mais aussi tamit wéy leen di ñu seetaan di jégalu ci kàddu yi ci lépp lu fi wax mu ëpp dañ koy jégalu nga xam nit moo doon wax te nit matul day manqué waaye nag di ko def te kenn du ko wax loolu moom. mënatul am nguuru Macky Sall li may faral di wax mën nañ réussir lu ne ci réew mi. Ah. ba mu des loolu loolu moom suñu borom du leen ko may. ayca comme ko waxee way leen di abonné waaye nag ku abonné ku nekk rek da nga laalaale cloche de notification bi su ko defee bépp information bu fi jàll rek di nga ko am en direct di fàttali ne encore une fois ñu ngi woo képp koo xam ne rek wal Walfadjri euh, soxal na la te euh, mës na la servir demain incha allah ci aljuma ji bu ñu jullee ba noppi rek képp koo xam ne ni. Euh, ngi leen ci woo daal vraiment na ñëpp ñëw su ko defee ñu amal euh, manifestation bi ci jàmm ak mhm. salaam di leen di wax ne nag actualité euh, mi ngi noonu actu solution di leen jox di daje rek beneen alxames incha allah remercier képp koo xam ne rek yaa ngi doon bàyyi xel aljuma jeudi beneen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam